لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر ولله فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه واعلموا أن الله تعالى ارتضى لكم هذا الدين وأيدكم به وسماكم المسلمين فمن اعتصم بحبل الله فقد أوتي خيرا كثيرا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا بادروا إلى فعل مأموراته التي أوجبها وأخرجوا صدقة الفطر واجتهدوا في إخراجها ولتكن من خالص أموالكم وأطيبها وأحل مكاسبكم وأعذبها عن كل صغير وكبير وجليل وحقير ممن تجب عليكم نفقته وتلزمكم مؤونه من رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم فإنها إن شاء الله كفارة لذنوبكم ووسيلة لقبول صيامكم وهي عند أبي حنيفة نصف شاعر نصف ساع من بر أو دقيق أو زبيب أو ساع من تمر أو شعير على هذا الترتيب ولا تجب عنده عن الزوجة ولا عن الولد الكبير وتجب عن الطفل والولد الصغير ويجوز عند إخراج القيمة بدلا وإخراجها للفقراء أحرى وأولى وكل ذلك عند من يملك النصاب فمن فعل ذلك فقد وافق السنة وأصاب وعند الأئمة الثلاث يخرج الشخص عن نفسه وعن تلزمه النفقة له من ولد وخادم وزوجة إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلة أعاده الله على فاعله من فضله ومنه والبر متعين عند الثلاث فلا تخرج إلا منه كي تكون نفسك في راحة الحديث قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال كان كمن صام الدهر وعنه صلى الله عليه وسلم من عصى علي من عصى من عصى الله يوم العيد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 te bu ñu la laajee luy dëgg man ngaa wax ne dëgg mooy loo xam ne pare nga caa wéet yow kenn ni koy yàlla waxee ne leen lan yadurrakum man dalla in ihtadaytum mu ne yéen ñi nga xam ne dangeen di fexee jubal bu ngeen jubalee bu li ëpp bu réeroo bu ñu réeroo nit loolu du leen wàññi dara ndax te wax dëgg yàlla euh, senegal ci affaire diine dafa bëri Anas ibnu Malik bokkut bokkut ci googu cala la waaye teroon Malik ibnu Anas moo doon jiite jumaa yonent bi ngir xam-xamam te booba ñi askanoo ci yonent bi ñu ngi ko fees dell te ñoo doon julli ci gannaawam kooku mooy benn bi nga xam ne dafa yàq diine ji ñaareel ba tariqa yi ay sos la duhut cosaan ci diine yi yonent bi xamutoon tariqa saxaabaam yi amuñoon tariqa taabiina amuñu tariqa taabii taabiina amuñu tariqa yonent bi jóge na fi lu jóge junney xat benn tariqa xamut tariqa yi bi ci gën a yàgg mooy Abdul Qaadir Jeylaani ca Baxdaad te turam dëgg-dëgg mooy Abdul waa Abdul Wadud ibnu Abdul Qadir al-Cheikh li mooy turam dëgg-dëgg ñu askanalee ko Jeylaan nga mu dëkk te dëkk la boo xam ne sax ci Iran la bokk ndax Iran ak Iraq dañoo jaxasoo ndax iwaanu Kisra bi nga xam ne buuru Fursi yi folo la toogoon keroog bi junt bi juddoo tam xar ba tey dem naa fa mën naa leen woon portale bi xar-xar baa nga fa waaye ci Irak la bokk ndax Irak ci moomeelu Faris la bokkoon bi yonent lislaam ñëwagul ñaari nguur yu mag yi ñoo fi newoon Faris moo moomoon penku bi lépp lu nekk penku dex gi ñuy wax dijlata loola képp koo xam ne nekk lépp loo xam ne nekk na penku dijlata muy dex gu rëy googu ci faaris la daan bokk lépp loo xam ne ci dafa nekk xarfu alfuraat mu ñaari dexe nga xam ne dañoo leroo kooka ci róom la bokk bi yàlla di wax ne alif laam miim xulibati róomu xeex ba ci Jordan di gii la amoon ci ordon waaye boobu ordon mi ngi nekk ci moomeelaf róom dëkk ba sax róom ñoo ko sancoon tudde ko Philadelphia Philadelphie moo njëkk tur moo njëkk a nekk mooy dëkk bi njëkk nekk capitalu Amérique mu nekk ci benn état bu ñuy wax Pennsylvanie waaw léegi nag e eh, ngir yi ngir yi gannaaw gi it la génn ñeenti téeméeri at gannaaw yonent bi awul benn hadis bu ñuy mokkal walla bu ñuy jàngale yàlla jëlee eh, eh, Muhammad al Buxaari Buxaari dafa am dëkk bu ñuy wax Buxaaraa ca fa ñuy wax tey Turkmenistan waaye ci moomeelu Faris la bokkoon làkku Faris lañuy wax mu jógee fa ne ku toll ni yonent bi jógee fi te amuñu ay waxam yu wér te bëri na li ñuy wax naan yonent bee ko wax kon nag man danaa jóg di ko gëstu mu jóg yor ay carnet di wër di seet dajale bu xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj mooy euh, kii mooy mooy benn xaaj ba mu de mooy saxiix mooy li nga xam ne biñ ko toppee wér na ndax hadis boobu ci lu mel ni aminu euh, mbirin euh, siyaamun fim safar maanaam kenn wérante wu ko ni ñu ko waxee benn la moo classé bu wér la buy bu wér la bii bu wér la bii bu wér la nit ki tey su fekkee woon ne nit dafa jógoon tey ci sët yi ne dafay seet ay waxi maam xalifa mu daal di ñëw daal di laaj laaj ma ci maam Kéba Ndaw mu ne ah, man de dégg naa sama baay ne nangam ne dégg na ko ci sama maam xalifa mu wax ko mu ñëw ci misaal daal di ñëw daal di ne waaw ñëw ci misaal daal di ne waaw alaaji Ndaw alaaj na waa man de dégg naa nangam sama baay mu ne ma dégg naa ko ci maam xalifa mu ñëw ci man mu ne ko mu wax wax jooju mu ne ko waaw loolu sama baay ko wax ci misaal bërki démb rek suñ bokk moom di wax ci wal fajar yi du wax na ne maam alaaji moo wax ne ka naxaaru su shayaatini mu fiire ko boppi ñàngoor du dëgg loolu maam alaaji waxu ko loolu maam maar faatu maar faatu ñuule moom moo doon toog foofu ci ñun ñeseen ñuy waxtaan bi mu ko wax sama kanam la mu ne waaw ana yàlla nu mu mën a waxee ruusu shayatin yi nii te nit ñi mosuñoo gis se sey boppam seytaane waaye loolu la koy tontu moo fa yàlla waxee ne laa uqsimu bi maa tubsiruuna wa maa laa tubsiruuna yàlla duhut ne li muy wax lépp rek lu nit ñi teg bët la àjjana ku ko teg bët safara ku ko teg bët malaaka yi ku ko teg bët yàlla dana waxee loo xam ne lii luñ gis la ak lu gisut muy laa juwe leer naññi kon nag mosuñoo nekk gis bopp seytaane taxut ñaareel ba ka kaw ne euh, bopp ñàngoor dafa foog ne boppi seytaane yàlla daf ko wax foofu ngir raglu te yàlla dafa wax foofu mel ni ay boppi seytaane waxee ko ngir ñaaw ndax yàlla dafa ne lim bind mbaama ci gën a naqadi baat nit a ci gën a rafet jinne ci gën a ñaaw kanam ruusu shayatini mu ñu mel ni bopp seytaane seytaane bopp du rafet waaye waxul ne lu raglu la xanaa bu doon lu raglu kay dafay ne kanaa euh, ruusul usudi xanaa kon ñu ngi mel ni boppi gaynde xanaa nit kii bu dajeeg ñàngoor dajeek euh, dajeeg gaynde euh, du daw ñàngoor mi xëy na mu teggi ko xëy na moom mu yet mu ko dóor waaye euh, gaynde moom daw rek kon li raglu du hut bopp ñàngoor maam alaaji waxut loolu waxut loolu ndax maam alaaji nim nim mu firee yépp sama bàyyi firee na ma ko laan ba naasi jaar fa baayam daan jaar teggu ci benn baat kon moo ko xamul kenn du ko xam maanaam loolu yépp mi ngi dugg ci ay naxasax naxasaxa yoo xam ne fi ne nii moo nekk lu ñuy wër di ko waxee comme ni wax déemi bukki mais euh, yow àllu ndukumaan bi nga xam àllu ndukumaan maam déemi bukki waaye àllu saxaraa bi nga xam ne fa bi dëkkoon xamul déem sax bay am bukki xamul dara àll la boo xam ne dara du fa sax lu mooy garab ak tàndarma genn garab du fa sax doo am mango doo am papaye du am déem bukki du am déemi gaynde yooyu yëpp ay kii la rek ferñeent rekk la fokk ñu delloo xam-xam palaasam ci kaw loolu dama wax ne tariqa yi duhuñ cosaan maa gën jàpp ñëpp tariqa di doxal waaye dama ne duhut cosaan sos wu rafet la waaye duhut cosaan ma ne sos bu rafet la duhut cosaan mu rafet la duhut cosaan fu mu dajee ak fu mu dajee ak téere ak sunna ñooña dafay mel oto bu dajee ak otoraay fay taxaw bu otoraay jàll alquran ak na duñ leen di tudd dara sëriñu tariixa nag duhut sëriñu sariya te sëriñ siñ fi tudd muy alaaji malik muy sama maam alaaji Abdoulaye Niass muy Serigne Bamba muy ñi ñuy tukkalee ak ñooñe duhuñu hoon sëriñu sharia ñoom dañoo ne dañoo bëgg yonent bi ñu bind ci moom sallallahu alayhi di wax ay mbaaxam ak i taaram ak i jëfam di ko jéem roy pour bëgg nit ñi roy leen ci loolu waaye yax yi xamuñ ko woon téere xamu fi woon téere xamutoon Sénégal ci jooje jamono Sénégal jàngalewuñ hadis te ku jàngalewut hadis doo mën a xam yonent bi ndax yonent bi ay xëyam ki ngontam ay xareem ki njàngaleem lépp ci hadis la ne hadis mooy jàngale ni ñuy jullee nekkul ci alquran alquran rek dafa junj ne julli war na yëkkati leen ko waaye julli ga nga xam ne moom la njëkkoon a yëkkati julli googa toog ñaar rek la xoon wax naa leen ne cosaanal julli mooy bokk ak yonent bi lekk yaag mbooloom euh, sahaba mi ak yonent bu mën a doon ngeen jàkkaarloo mooy cosaanal julli muy dem nekk ak ñaan rek la woon ñaan gannaaw gi nag la nekk ay qiyaaman wa qu'uudan gannaaw gi la nekk taxaw ak sëgg ak toog waaye nekkut ko woon fa ca xàgg ci santaane bi yàlla ci njàngaleem jibril moon ko yonent moon ko nit ñi waaye nit ki mën naa nekk li li tuddee aarif billah xaw ma nag am na am déet waaye li yàlla tuddee aarif billah ñi ñu wax nañu ko xam yàlla la waaye fekk xamul dara ci sharia fan ko xanaa jàngu leen ne ibnu baawra ba nga xamee dañ koo rékki xutbaan yetum gi waa ji doon màndi tam di ko ree moom lañ ko jox kooku xamu dara sharia ma ubbee a ngi fi mën naa leen a wax ne ñi ëpp ci wàll yu mag yi ñuy tudd ci àddina bi ñu génnee ay yëf yëpp ñooña xamuñ tous ci sharia mënuñu sax jàng julli waaye kooku noo koy waxee ne ko sama diine nii la ak ni la xamuñ ko mën naa am ngëneel ci yàlla te fekk xamul xam-xam bi lislaam xam-xam mutawaatir maraaje mooy lii fay dellu ci diw ci téeri sàngam ci téeri sàngam ci addis sàngam fokk mu dem ci alquran ak addis dara mënta am cosaan ci àddina ci diine lislaam te nekkul ci alquran nekkul ci addis mënta ne mënta nekk ma wax leen nag ne bés ni tey ci la aj tàmbali ñii fi ne tey war fee jógee aji toog war na bu ne buñ xëyee bala mu ñoo bu ñu jullee suba buñ sëlmalee war nañoo la bayka bu bu géexee julli kuñ julli fi ne nii war nañoo la bayka ndax armal aji jot na tey jii su am na ñoo xam ne ña nga fa tey ñi ngay wër kaaba gi di la bayka di daw safa ak marwa tàmbali nañ aj buy kulifraat dootul dindi armal gi ba arafaat bañ ne suba la tabaski du ko dindi sax du gannaaw yoomu yaamu tarwiye gannaaw taajul aw taaxur ceeb minen kon nag aj gi tey la tàmbali aj gi nag bés bii dafa méngoog bés ba ñuy taxaw arafat aj gi arafa ko tax a jóg weer seenu weeri arafa rekk ko tax a jóg leneen taxu ko jóg